mbokk est-ce que président la Macky Sall respecte la république est-ce que vous respectez une république lii muy doxal ci réew mi dina ko doxal moom moo njëkk a jalgati république ci tëj jaay doole utiliser justice di dal ci kaw nit ñi utiliser gendarmerie di dal ci kaw nit ñi di ngemb ñu luubal alal réew mi non seulement daral du leen dal waaye da leen di jox promotion ñu gën a am doole gën a mën a luubal alal réew mi kooku est-ce que républicain la est-ce que respecté na république bi ñu japp ni nak comme date république bi la république bi moy kan moy citoyen sénégalais citoyen sénégalais yi nga xamné ñoy république bi ñoom it ñoo wara wax ak Macky Sall ñoo envoyer un message ci date républicaine bi ren jii moy don fukel yon ak ben bu Macky Sall di wax ak sénégalais ci 31 décembre mu déssé ko ben rek. muy bu daaw bu bu déwén incha allah mu abal ñu réew mi ren ji mooy fukkeel yoon ak benn est-ce que Macky Sall li mu diggee woon ak yéen waa askan wi ci fukki at ak benn yooyu est-ce que Macky Sall respecté na ko kenn ku ci yéen mun na koo tontu moo tax la ñuy li ñuy def 31 décembre bu koo def diggante vingt ba vingt heures léeg-léeg ñuy def noonu muy concert de casserole askan wi mooy wax ci datu républicaine ak président la république ne ko kontaanuñu ci ngay ni ngay doxalee réew mi te dañoo bëgg mu jeex fii rek askan wi amul possibilité di def loolu li fi nekk du fi jóge looloo tax ñu choisir date boobu kenn gënuñoo nekk républicain ndax li ñuy xeex xeexuñu ko ngir suñu bopp de république moo tax ñu koy xeex république bi moo araamal ñu luubal alal réew mi république bi moo araamal ñu gannaaw bu ñu luubalee alal réew mi ñu ne dara du ci tegu kon république boobu mooy wax ak président Macky Sall du usman Sonko du du du benn leader politique du benn leader société civile waaye askan wi république bi mooy wax ak Macky Sall lii rek doyoon na ci ñu def ko waaye boo ci boolee ñaar yi nga xam ne lu am solo la. mooy ni ñuy jëfandikoo justice pour di tëj ay gor di leen métital kaw Pape ñaa ngi fi tey am na ñaar fukk ak ñaar ci ay ndaw senegal yoo xam ne defuñu dara dul wax seen xalaat ci internet walla ci rajo wala ci télé ñu jël leen ne leen rëpp ci kaso bi boobu jamono ay ñu doon jaay drogue ak ñu doon defar faux billets ak ñu doon defar léegi lii ñu ngi ci mbedd mi di dox ñaareel bi nga xam ne war nañu tax ñu génn ak ñu manifester ba Macky Sall xam ne kontaanuñu mooy njëg yi mbokk yi Sénégal yi sonn nañu lu doon jar fukk démb tey mi ngi jaar juróom fukk kon ñi ngi woo Sénégalais yëpp ñu xam ni ñun ñoo mën a dooleel suñu bopp te saa suñu néewalee suñu bopp rek dooleel nañu Macky Sall ci loo xam ne luy gaañ réew mi la kon le 31 bëgg nañu fu waay nekk ci Sénégal waa àdduna yëpp dégg ni manifeste nga ni am nga lu la naqari ci ni ñu yoree Sénégal ni ko Macky Sall yore ñu ngi leen di gërëm di leen sant di leen jox di daje ci événement yi nga xam ne tudd nañ ko léegi asalaamaaleykum wa rahmatullah